par rapport à ce qu'on a découvert. Au mois où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour euh, la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur et une, euh, un de 73,7 et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de, de dette. Évidemment, la conception Il faut en tenir compte les efforts que nous devrions produire tous les Sénégalais, pour la pente. Il faudrait en tenir compte la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, leur donnant la garantie. Comme l'a dit le ministre, il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris, nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie. daal di ko euh, fii nga xam ne moom mooy ci euh, building administratif euh, Mamadou Dia yeneen ci ministre yoo xam ne itam yëkkati nañ kàddu moom mooy le ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu finance ak économie bëgg la saabi rek par rapport ngay dem naka nga gisee li nga xam ne moom mooy conférence de presse bi nga xam ne le premier ministre amal na ko tey waa je pense que conférence de presse bi déjà am na njëriñ en terme de transparence dafay tax askan bi xam ana fan lañ jëlee réew mi ceen ceen anam lañ ko fekk donc loolu dafay gën a tax ku nekk xam euh, ñoom fu ñu ko jëlee su ko defee ñoom li ñu bëgg a teg ci wàllum programme ci wàllum euh, doxalin ñëpp xam fan lañ bëgg a jëmale réew mi donc jàpp naan loolu déjà ils ont été élus sur cette base là d'abord lan mooy la transparence ku ne transparence mooy lan lépp loo xamante ni mu ngi jëm la ci wàllum doxalin réew mi nga fexe ba yëgal ko askan bi nga xam ne moo la fal moo la fi teg donc loolu jàpp jàpp naa sur euh, le principe euh, lu baax te aussi dafay gën a tax euh, ñu gën a rehausser le niveau du débat premier sa waxoon na ko cest à boo posé genre question technique yi nga xam ne dafay jëmale réew mi kanam bu fekkente ni ñeneen ñi ñu koy jiiñ nii nii lañ fekkee réew mi bu fekkee ñoom d'accord ñoom aussi sur la base des aspects techniques yoo xamante ni mun nañ ko teg ci penc mi su ko defee askan wi mooy gën a am lu ko leer ci wàllum koom-koomam ci wàllum euh, choix politique am choix économique yi mu jël ci wàllum endettement ci wàllum fiscalité ci wàllum euh, corruption entre autres donc yooyu dama jàpp ni lu baax la te askan wi ñëpp ko war a rafetlu ndaxte dafay gën a tax ku nekk xam ana réew mi fan la fan lañ ko jëlee fan lañ ko fas yéene yóbbu. ak it ku nekk lan moo war nekk wàllam ci mbir mi. merci beaucoup merci. merci jërëjëf kon nag mi ngi noonu ñu koy gërëm bu baax continuer ba léegi laaj ñi nga xam ne ñoo fi nekk. ngoone je pense que de presse bi jeex na euh, naka nga gisee kàddu yi nga xam ne le premier ministre daal dina ko yëkkati tey ak lan ban lan ngay xaar ci itam ci dogal yi nga xam ne jël na ko à travers le ministre euh, de la justice. waaw muy euh, kàddu yi nga xam ne wax nañu ko sànq muy le ministre. Euh, le premier ministre ànd ak ministre de euh, l'économie et des finances ak secrétaire du gouvernement waaye tam ki nga xam ne mooy le ministre de l'enseignement supérieur euh, moom le premier ministre Ousmane Sonko nag ci li nga xam ne itam daal dina koy wax mu jagleel ko situation bu dëkk bi euh, gis nañu ne nag euh, dafa ñëw rek tàmbali ci réquisitoire sax la ñu ko mën a jàppee euh, li nga xam ne nag daal na koy wax joxañ baaraamu tuuma régime bi fi nekkoon di régime bu Macky Sall moomee ci responsabilité itam wala sax mu jàpp ne nag ab catastrophe la fi daal di bàyyi ginnaaw bi mu jàppee ne nag régime boobee dafa wax ay kàddu yoo xam ne du dëgg ñii nga xam ne moom mooy sénégalais yi falsifié itam ay chiffres lu toll ci 1800 82 milliards de dettes yoo xam ne euh, mosuñu ko déclaré ci trésor euh, public mosuñu ko wax itam ñi nga xam ne ñooy euh, sénégalais yi 2500 milliards yi nga xam ne dépensé nañu ko daal di koy wax ne dafa bokk ci sowu secret défense loolu itam moom euh, premier ministre daan na ci wax waaye itam gis nañu ne euh, jox na kàddu ministre de l' économie et du euh, plan de la coopération muy Abdourahmane Sarr mi nga xam ne def na ab exposé ci état wu finance dëkk bi ministre de la justice itam Ousmane Diagne wax na itam ci ay aspect wu base juridique yoo xam ne daal jàpp nañu ne noone itam la ñu nar a defee ndax wax na ne dinañu topp. naam bu fekkee ne am na ñenn ñoo xam ne euh, am na euh, lu ñu euh, daal di def wax na itam kaddu président de la république mi waxoon ne ci mandaawam du mës a déroulé ci ay fen wala tam du ko jeexalee ci ay fen moom nag loolu la wax ne moom moom mooy waxoon na ko ci conséquence judiciaires yi nga tam nga xam ne daal dinañu koy wax ñu ne nañu jël responsabilité yëpp dañu koy sutuyee muy déclaration yoo xam ne moom ministre de la justice daal dinañu koy lu jëmit euh, ci 1200 milliards ñu subventionné woon ci électricité euh, ci atum 2022 euh, moom premier ministre daal na ci dellu siwaat waaye wax itam lépp loo xam ne jëm na ci dund gi wala sax loo xam ne ab luuba bu ñu jàpp na nag état bi fi nekkoon daal dina koy amal kon li nga xam ne itam mooy les détournements wala présumé détournement de deniers publics yi wax na ceek topp gi nga xam ne tàmbalee nañu topp ñenn ci loolu itam moom premier ministre bu Sénégal daal dana ci dellusiwaat kon mën nañoo euh, jàpp ne daal euh, lépp loo xam ne euh, ñeel na lu jëm ci nañu fekkee Sénégal lii nga xam itam moom mooy seen projet bi ñu naka dégtal Sénégal yi daal di jëm ak ñoom ci Sénégal 2050 moom premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko dellusiwaat na ci kon ñoom ñoo déggoondoo yooyu le kaddu ñu sant leen bu baax.